fi ñuy euh, daanale mooy mbiru Cheikh Ahmed Cissé ndax war nga ko xam ndax Séné fii la nekkoon ci senegal gis ngi ne jamono ji coow bari na ci comme que député nga assemblée nga nekk lépp loo xam ne xew na ci réew mi rek dala war a soxal danga ci war a yëy yàbbi ci naka nga gisee boobule mbir jamono ji mu nekk loo xam ne sénégalais yépp ci jaaxle. Euh, Cheikh Ahmed Cissé li mu wax am na lu ko gën a metti Sénégal te yéen ko fay dund ma ko fay dund mhm. yàlla mer lool mhm. muy xale yooyu nekk ci mbett mi ñu leen di dóor bay daggati seen yaram yi di leen sotti essence mhm. di leen ceene di yegg ci ñoom Ahmed Cissé du ma tudd sax Gambie parce que Gambie ak Sénégal benn la des affaire yu mel. Mhm. Ahmed Cissé doomu Afrique la. Mhm. bu jógee ci beneen dëkk ñëw ci suñu dëkk ñuy yaatal ko journaliste yi laay amal boobu wax. Mhm. nañu respecté réew nañu bàyyi keneen ku jóge ci beneen dëkk ñëw di saaga sunu réew. bu ñu la tàllalee micro boo waxee luy safaan bu ñu ko teg di ko. Mm-hmm. yàlla la Ahmed Cissé waxal. Mm-hmm. balaa ñoo génn di ko engagé nañu génnee xale yooyu ci mbedd bi. Mm-hmm. sunu borom moo wax ci alxuraan mu ne. fu xale di souffrir jigéen di fa souffrir boobu réew su amoon ay jamaan yi fitna laa leen teg. Ahmed Cissé yàlla la jëflanteel. Mhm. tout est baax. Mhm. xale yi ci mbedd mi na ustaas yooyu génn seen wax yi. Mhm. nañu génn attaqué état. xale yi jóge ci mbedd mi tey tey tey yàlla kontaan lii ñuy xeexal yàlla. seen yoon nekkul ci suñu borom bi Barthélémy Dias génn na toog ni seen kaamil boobu ngeen di wàccee lu dara jëriñu dara lu tax génn. yàlla moo bëgg a dëkk. booy dee na nga wax dëgg mm-hmm. nañ ñu may suñu jàmm mm-hmm. Ahmed Salif Cissé maam Matar Gueye ko sob bu dugal ko Jamra mm-hmm. comme Jamra Jamra affaire fola ak jiñ nit ak jiñ état ak tëj doomu jàmbur yi loolu la Jamra di liggéey liggéeyulul yàlla nañu may nit ñi suñu jàmm génnee xale yooyu maam Matar Gueye boo may dégg xale yooyu ci mbedd ñu moo naqari suñu borom mm-hmm. jigéen ñi ñuy toroxal Sénégal di leen jamati di leen rey di am ak ñoomi doom di sëy ñoom di tas di leen bàyyi seen njaboot yi maam Matar Gueye loolu mooy débat bi mm-hmm. buñ ñu rey ku dëkk yi ku ñëw di ñu saag bis bu yàlla sàkk dama rus di toog di déglu mhm. Ahmed Cissé ak sama doom mhm. ndax affaire sexe yi mu ñu wax mhm. aw ma dara lu may genn sa over moom Sénégal dañuy bay bayal doomu aadama ba mu commencé ñu xam ni lii du suñu culture. Mhm. la ko waroon a wax ko luy dëgg aussi kii doxul jël na jàpp ko xam na li muy def. Mhm. nee na nitu intérêt mhm. wax bii nag ñu bëgg a jël rek di ko di ko defal ay juróomi plainte suma leen mënoon a plainte ñaar téeméeri plainte dinaa leen ko plainte ci xale yooyu ci mbedd. ñan ngay plainte waa Jamra. barki Alxuraanu Karim. Mm. nañ jëli xale nañ xale yi ci Sénégal yëpp loolu mooy rôle bi. Mm-hmm. loolu mooy liggéeyal suñu borom. Mm-hmm. loolu mooy xeexal yàlla. Mm-hmm. xale yi sonn nañ ci mbedd mi. nañu wax loolu. seen vidéo yi yéen ak xuru euh, xale bu dooj boobu noonu Oustaz Matar Sarr ba dof. Ahmed Ahmed Ahmed jël benn rigueur bu rëy bu jox ko Ahmed xal xaw ma mu tudd Ahmed Cissé mais réyal ko mais yàlla la waxal yàlla gis ngeen lim leen sant pour ngeen def ko te defu leen ko may leen ñu suñu jàmm laa wax mm-hmm. loolu mooy sama wax ci attee mm-hmm. ah, ah, Cissé moom mm-hmm. xale yi ci mbedd mi ñu ngi dee xale yaa ngi souffrir soo toogee bu ñu coupé demal YouTube nga xool xale yi ñuy filmé niñ leen di def mm-hmm. tubaab yaa ngi ñëw góor jigéenu tubaab yi ci biir dëkk bi mm-hmm. di tëddee xale yi mm-hmm. pédophile yaa ngi ci biir dëkk bi ñaata nit la lañ la woon ki tëddee euh, vingt xale Touba ndax gis nga leen ñu génn ndax gis nga leen ñu génn def ko marché ne sëriñu daara moo siif ay xale seen yoon nekkul ci yàlla mhm. nit wax na Sénégal lone fële ne ca booru baaw baab am na ku fa yéegal benn xale góor jigéen di ko tëddee ca kaw sooroor ba déggati nga ko mhm. génn nañu di di mars génn nañu di wax nañu wax ci xale yooyu ci mbedd mi te may jàmm mhm. ak ak ak Ahmed Cissé nañ ñu dimbali dara ñoruma ci li ñuy wax mais dafa di ñoom ñoo fi teewal diine gi te ku yëkkati cu diine gi lu bon teg ko ci ñoom ñoo ci war a àddu dafa mel ni ñoom ci côté boobu la ñuy waxee parce que li mu wax jëmale ko ci yàlla itam dafa rëy képp kuy julli teg wax jooju metti na la. nee naa la amul ku mu méttiwul. Mhm. mais sunu borom mooy sunu borom. Mhm. yow day mhm. bi li lay neex moo naqari sunu borom bi. Ahmed Cissé dama ne. Mhm. journaliste yi ñoo ko bay bayal Sénégal ba mu mel nii. Mhm. parce que sénégalais dafa bëgg a waxu sexe. Mhm. ñu koy tàllal micro. sañoo ko def yow Gambie. amoo fitam. boo amee fi tamit nga respect boo xam ni doo toog kilifa Gambie yëpp di la bu Sénégal ngay wax ay wax yu ñaaw. Ahmed Khalifa Cissé euh, euh, Oumar Cissé dafa war a am kilifa. Mhm. boo demee bañ lay seetaan. Mhm. dafa am yoo xam ne da war a bàyyi kas. Mhm. yow rafetoo yàlla may na la xel. am na yeneen yu doo war a wax bu dul toog di ñaawalaate di def sa yëfi kaf yi. defe ni yow comédien nga saa njoogu mooy comédien bu sénégalais yi jël favoriser ko ba mu nekk journaliste. Ahmed Khalif euh, euh, Ahmed Cissé euh, dafa jàng alxuraan. Mhm. mais jàng alxuraan na taxul ak bañ a nekk kàccoor. Mhm. bañ ko waree arrêté yàlla dana kenn arrêté wu ko bañ waree wax waxu ñu dañ ko dugal jamra mhm. di ñaawal sénégalais yi. boobu la wax yàlla ca néegu yàlla ba ñu fay joxe kàppoor booboo ko gën a metti. te ba mu génnee kaso dañ ko yóbbu jamra nañu bàyyi nit ñi ñuy manipuler. te wax ci xale yooyu ci mbedd mi jóg def ay débat. Mhm. ok amuñu baat. d'accord. Mhm. Ahmed mën naa mën naa taxaw défendre boppam. Mhm. ni may wax ak yow ni am na xale bu ñu yeew te kenn xamu ko. am na xale bu ñu tóor ba muy bëgg dee te kenn xamu ko. te ñoom xam nañu lépp. buñ ñu rey nañu wax ci xale yooyu jëlee leen fa bàyyi doomu jàmbur mm-hmm. yàlla la waxal waxul ak ñoom ñëpp la naqari nag mm-hmm. mais dafa am yu ko fa jiitu te fajuwul d'accord mooy jigéen ak xale mm-hmm. ñu ngi torox foofu ci biir réew mi am na xale bu jigéen bu ñu fekk ba biir këram jam ko paaka dégg nga wax ci lu sa yoon ci yàlla yaa ko gën a mën a faj bu ko neexoon mu dëpp Sénégal léegi. Mhm. su ko neexoon sama wax bii du yegg. Mhm. nañu may jàmm. d'accord. fii lañ mhm. fi jëloon président Macky Sall ak état ñoom ñooñu ñëpp ne dañuy voté pour góor jigéen. gaal fa biit. te li doon wax dara du ci dëkk. ñu toog di meleste ku noonu. nekk ci télé yi waaraate wuñu wonewu wut xaalis mm-hmm. toogalu fi yàlla Ahmed yàgg naa wax lu ñaaw ñu ciy teg seen bët bu ñu xeexal yàlla mm-hmm. yàlla mën na xeexal boppam la xew Sénégal bari na lañ fa wax yàlla bari na lañ fa wax yonent bi barki arxuraan son yi bu wal fajiri moo ma tegal kuy saaga yonti yàlla Muhammad comme yow Fatima ma tiige la di saaga yow astaghfirullah mm-hmm. ci son yi bu bu wal fajri mm-hmm. kuy wax yonti yàlla Muhammad mel ni man malay saaga yow Fatima yow nit seppal malay saaga mm-hmm. nii la ko doon saaga moo ko teg ma dégg ko jour boobu dama am xaal yooyu yëpp xew na fi dëgg la yonent bi ma génn vidéo ji ne leen génn leen dem leen ci son yi bi mu tegal leen kii li muy wax yonent bi ñu ne pat li ñuy xeex duñ ci am ndam yàllaa leen ëpp doole. d'accord. waaw kay. duñ ci am ndam. xeexal luñ ko. Mhm. buñ ko doon xeexal dem ci xale yooyu lay waxaat di ko fàttali Sénégalais yi. ñuy souffrir te amuñu baat. Mhm. bu ñu jooyee kenn du leen dégg. Mhm. bu ñu waxee kenn du leen dégg ñu leen di joxe mburoo ki juróomi dërëm ki guroo ki sondeel. nañ wax ci lii. ñoom nan génn jamra mhm. xeex lii mhm. loolu la leen yàlla sant d'accord nga vraiment ça a plaisir déglu la dégluwaat say kàddu comme ni ma ko waxee lépp rek lu xew ci réew mi euh, da nga ci euh, àddu même bu dee sax nekkoo Sénégal wante da ngay mel ni yaa ngi fi ndax lépp loo xamante ne rek soxal na sénégale yi da nga ci àddu vraiment kontaan nañu lool dégg tey sa sa ay kàddu jëmale ko ci réew mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la nag nga tàggatoog internetu sans limite. waaw Fatima di la jaajëfal rek sans limite. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm di wax ni leen yàlla def mag yu mage mhm. di ñaanal maam Abdul Aziz di uh, démb la woon anniversaire am mhm. di ñaan yàlla sunu borom bi yal na ko yóbbu ci àjjana firdawsi amiin mhm. uh, namm nañ ko trop nag namm ay waxam te duñu julli te ñaanaluñu ko ndax mag mu mage la woon yal na ko yàlla yërëm ak bépp njabootu El Hadji Malick ak bépp euh, euh, njabootu yonti yàlla Muhammad ku du julli sax yal na la yàlla yërëm amiin mhm. di ñaanal Sénégal yëpp jàmm na mhm. euh, <clears throat> di wax Sénégal nag ñu ngi xaar suñu président dimanche mhm. ci Nations Unies bi loolu moom direct laa la koy incha allah direct nga ma koy may jërëjëf Euh, franchement kontaan nañu bu baax a baax ci euh, dalal la ci jël la itam nga daal di àddu li nga xam ne moom moo xew ci réew mi ñu leen jox dig daje yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp à travers Sans Limites TV ñu leen jox dig daje ci kanam tuuti wala rek ci beneen yoon beneen actualité ak beneen personnalité merci beaucoup à la prochaine.